on gouverne ensemble mais bëri na ci ñoo xamante ne bii à la table de gouvernance li ñu leen waxoon gi ñoom gisuñu ko euh, ñoom gisuñu ko te la gauche boo xamee xam ne c'est pas des gens yoo xamante ne dañuy détourner ay xaalis au contraire on les appelle même des assets en politique ñoo xamante ne bii dañuy dañuy dañuy dañuy euh, c'est des c'est des soufis en politique xool bu baax gauche moo nekkoon ñoom Ahmed Dans non non xool leen c'est des soufis en politique ñoom soxla wuñ ay bling bling soxla wuñ ay signe extérieur de richesse bàcci li kër gu simple fii la dëkk et cetera mais ñi ci jot a jóg xoolal seen seen seen seen seen euh, seen seen sor LD lan moo ko tas pas tas mais lan moo ko def ñaari bloc LD debout et cetera parti social yi seen nga mu demee même si c'est pas de la gauche donc affaire bi loolu la c'est-à-dire il fallait laisser les gens idéal bi ñu leen jaayoon bu ñu ko gisulee ñu am sañ-sañu dem seen yoon kon heure bii du woon am ay problème u candidat xanaa xamoo parti socialiste am na nu mu doon demee mënoon nañ am sax beneen candidat bu dul Khalifa mais ku génn ñu tagg sa bopp xool leen fi mu nekk nii on risque d'avoir une présidentielle boo xamante ne bii même Khalifa Sall bi dem euh, buy buy buy buy buy candidaté mm-hmm. il n'aura pas en fet la bannière socialiste bannière ay taxawu Sénégal lay am. loolu lan moo ko war. Euh, moom parce que ñoom fu mu toll nii ñu ngi ci tànku réyabilité ko à l' assemblée nationale mais dina ci mais politique tamit Pastef existeetul mais leneen li nga xam ne nii mën na taxawee ni Pastef aussi mën naa peut-être mën naa am benn candidat bi nga xam ne nii. quand on te notifie defe naa avant-hier. waaw démb. la SU. yaa ngi dégg. Mhm. notifié nañ Birame Souleye waaw la dissolution mais ils ont deux mois pour attaquer la décision au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême mm-hmm. am nañ temps et si à partir de la notification mm-hmm. dans les délais mm-hmm. pour attaquer la décision la décision ou bien le décret est suspensif et si je, je pose bien le conditionnel à supposer que ça c'est définitif mais Pastef ak yeneen parti ñoo nekkoon biir Pastef kenn ci ñoom mën na jël récépissé jox leen ñu porte porter l'idéal de Pastef avec une dénomination Ousmane 2024 Alassane Ouattara 2010 Ado 2010 Macky 2012 Idi 2012 de dénomination laa wax maintenant nag bu dee condamnation dafa am ak ñu féete ca wàllu wee sama gars yi ñoom bu leen neexee ñoom bu leen neexee ñu ñëw rejeté candidature mais loolu tollooguñ foofu ba fii ñuy wax nii Sonko waa dëgg na yàlla kenn rajo ko ci liste électorale yi donc ñiy wax naan Sonko il est toujours éligible au laa de yaakaar mais loolu c'est de droit pur mais xam nga Sénégal aussi moom bu ñu la bëggee de ñëpp xam nañ ni moom droit moom non non non non kenn du ko wax seen kanam nañu bëgg def la ñuy def yaa ngi dégg mhm. dem seen yoon mais ce système de 26 pour cent là qui continue à diriger ce pays mhm. non franchement loolu dafi war a jeex nit ñi mën a am sañ-sañ samp seen dënd man foogoon naa président bu taxawee ne je ne suis candidat non programme yi day commencé di wulee ñaay mais xoolal situation bi rek wax ma kan ba ci moom ak ay nitam kenn la ci candidature am wóoragul te normalement suupa dañoo war a dem déposer en fait les les wala xoolal encore bo bi situation. ça ne favorise ça ne favorise absolument rien du tout. voilà aussi euh, ñu waxtaanee la riposte aussi au sein de Pastef gis nañu arrestation yi mu ngi multiplier Ousmane Sonko mu ngi mu ngi prison yi tout harcèlement bi mu ngi continuer mais au niveau de Pastef ou de l'ex-parti Pastef comme ni ñu koy woowee ñoom riposte bi. awul tuuti nga foog. non non y' a pas de mot de de de de docilité wala de de mollesse dans la réponse. il faut être vraiment stratégique parce que tamit la dissolution de Pastef a été un séisme mm. mais man je leur dis que c'est pas le moment parce que euh, d'après la presse. Mm -hmm. Cheikh mu ngi wax naan Pastef mu ngi soog a démarrer te man aussi tamit su ma gëmul loolu soriwu ko xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que nit ñi ñoo bëggul jaay doole. ak sot ak singali ak acharnement am na ñoo xamante ne bi ñu tojee véhicule de OS ci lañu dem uti carte ci lañu ñu militer ci la ñu engagé wu te bu njëkk waa ji sax neexu leen woon wala neexoon na leen mais dañ doon sympathiser nii mais après ci la parce xam nga lan la yow mënoo gis lu ne weng yow ci sa parti te doo ko wax ñuy appeler à assassiner quelqu'un te doo ci wax dara quoi ah léegi yow loolu doyatul nga dis dissoudre parti dans la même semaine ngeen woote fee palais ngeen toog foofu kenn ci yéen jubawul ngeen di signé ay charte mais en fait monsieur 26 pour cent cest à en réalité moom non neexul ba neexul mais man génie politique bi ñuy wax ci moom man gisuma ko. muy Macky sal non man yaa ko tudd yaa ngi dégg man gisuma ko xam nga man la moo tax gisuma ko. Mhm. mooy ak réalisation yi mu jot a def. Mhm. non waroon na ko mën a permettre mu dugal élégance ci affaire bi parce que même boo demee ci téere bu ñuy wax muqaddima ak risaala dañ la ne carrément booy rendi gàtt pour nga bañ koo sonal na paaka bi ñëw te mu gaaw mais xoolal gaa yi li ñu def lundi passé amul benn élégance euh, dajale la candidat yi ñi nga xam ne ni ñooy aspiré à wuutu ko ci bopp Benno Bokk Yaakaar kenn du ko ci déggal ci ñi nga xamante ne signé nañu ab charte am nañu sa ban charte Mansour Faye newoon na candidat la le président génne ko ci et tout quel est son mérite ce monsieur là Mansour lan mooy méritam am ministre la non lan mooy méritam am Macky moo yéy ne ko doo nekk candidat quel est son mérite non mais quand même dañ bàyyi ñuy def quoi am na ñoo xamante ni moom wax dëgg na yàlla dañoo war di wut addiya di jox Macky Sall parce que moo tax ñu doon no quand même sëñ bi c'est-à-dire c'est pas parce que voilà quoi c'est c'est-à-dire moo tax ñoom c'est-à-dire ñu mën a duñu mën a bëgg OS parce que OS dafa tabax dara dafa tabax mais ñoom lan mooy seen mérite mais rien du tout amuñu benn mérite xam nga Macky Sall loo ko contre contre am na méritu génn PDS am na ngoon ngoo xamante ni wéetoon na trop mhm. mu toog ci saala Mermoz Marème fay servir ko jus d'orange ak ba Aline Badara Cissé boobu sëngee mën na boobu gars yi fan lañu nekkoon fan lañu nekkoon tey ku mu nekk nga taxaw di tëgal përëg gars yi amuñu ni en réalité mais Macky Sall danañ koy wax dana li da ngeen siis au moins Macky Sall na mérite mhm. delloo ay jëfam yi ñu ko joxoon dem wër kajoor ak bawol topp ñaay bi lekk mango naan ndoxum je ne sais pas forage et cetera yekk ay sandwich woote place de la nation jël affaire bi xëy na kay liñ ñu koy reproché mooy moom li mu doon def daf koo bañal ay opposants yu nga xam ne c'est des opposants sérieux mais ñeneen ñi bari mérite la ñu am c'est des local locaux c'est des leaders ñooñu bu ñu génnoon fii à part euh, je ne sais pas bayax jogoog ñoo mais kenn du leen kenn xamu leen. Amadou Ba. gis nga benn daal non de façon man. xam nga Boun Dionne. non dama ne dama am na ci ñoo xam ne moom. Abdoulaye Daouda Diallo te dëgg-dëgg. Oh, ça c'est le vote alpulaar sëñ bi. ça c'est le vote alpulaar yow xam nga loolu c'était des local locaux sëñ bi amuñu envergure nationale. amuñu envergure bi c'est-à-dire gis nga dañoo yor xaalis rek mais am na ñoo xamante ne. Mhm. yow mii ñii ngi Sénégal set. Mhm. bu ñu wootee woon nga am moyens yi ñu am duñ la ëpp mbooloo. ah mais arrêté quand même. on est où là c'est-à-dire gars yi dañuy xëy c'est que xam nga illusion en fait am na ñoo xamante ne. ni Macky def ba jot ci nguur gi. c'est illusoire quoi ça dafa yomb. yomb naag yombul bon nit ku nekk ak sa étoile quoi. ok si ton étoile n'est pas éteinte. donc mu ngi noonu ça rayonne jusqu'au firmament. mais bu gars yi jàppee ne parce que ils ont été ministres quelque part. Mhm. proche du couple présidentiel. ay des relations de consanguinité. ñu jàpp ne affaire bi da ngay génn nii rek ñu jox la yëf yi non mais xamuloo ne xaw. proche du couple présidentiel loo bëgg a wax ko ci. je m'en tiens à ça que franchement gis nga de façon moom. Mhm. de façon man bennoo est-ce que gisal naa leen ñaari candidat yoo xamante ne bii mën nañu dara ne mbooloo. est-ce que am nañ ko mais mais Macky Sall moo ëpp gën ëpp ñëpp problème. bu demee bay si si delloo gars yi ay charte sachant que ni am na ñoo xamante ni fii ak fi ñu jëm 2024 munu fee ibbi procès li mu mën a def mooy bloqué leen ci parrainage bi te loolu dana def am na ñoo xam que keroog le premier juillet mu ngi wax naan am na ñoo xamante ni ñi ngay nekk fii di xaw ma di di di di wax xaw ma di war genre yooyu quoi quelque chose comme ça mais parrainage sax mënuñu ko am mais am na ñoo xamante ni mais à défaut ñu rejoindre les rangs c'est sûr que du jàll parrainage loolu c'est clair loolu rek la mën a def mais ubbi fi encore procédure jusqu'à jusqu'à quand <laughs> délai bi en fait dafa court donc am na ci ñoo xamante ne man franchement amuñu sax ambition amuñu aussi tamit prétention ils font du bruit simplement ils ont un agenda bëgg nañ continuer di exister parce que quand même les privilèges de l'État et cetera et cetera et cetera mm-hmm. est-ce que yaa ngi mm-hmm. le PS qui est parti à la table euh, des assises euh, de la gauche plurielle mais c'est pas ce n'est plus un idéal socialiste mm-hmm. ce n'est plus un idéal socialiste dañu waxante dëgg nañ dëgg te boo ko waxee ñu la non yow fi nga bokk et cetera non mais nañ waxante dëgg l'idéal socialiste tey moom mooy dem di flirter avec la gauche pour di wëri ay candidature te xam nga ne yow le PS n'est plus ce qu'il est plus euh, euh, n'est plus euh, avant donc affaire bi daal mu ngi noonu ñoom li nga ci entorse bi nga ciy gis mooy quand même ils se réunissent dans notre palais notre palais pour se chercher un candidat alors que les autres ñoom amuñu sax droit exister wala exprimer wu ils sont en prison waxuma ñi nga xam ne nag dañoo def ay attaque def ay casse ñooñu dañ leen war a diligenter seen procédure euh, seen seen seen procédure atte leen mais ñi nga xam ne ils ont fait ils ont ils des des des idées des expressions franchement leur sort n'est pas ça ne doit pas être carcéral voilà le président Macky Sall boobu ba léegi aussi mu taw a génne candidat dafa hésiter day ragal lan lay ragal exactement non non maanaam xam nga li muy ragal mm-hmm. mooy Euh, fissure bu mag am. te c'est une possibilité. amul possibilité dafay am loolu. Abdoulaye jàlloo Diallo c'est un classique. Abdou Mbow da koy jàppale. est-ce que Arona Dia mooy authentique yu ñu est-ce que Arona Dia aussi tamit du ko jàppale mais candidature boobu c'est une candidature confinée localement c'est ça la vérité. c'est pas une candidature d'envergure. c'est-à-dire loolu moom mooy dëgg quoi. Abdoulaye Daouda Diallo mënul. traîner dara quoi en terme non non non c'est une candidature. qui est dans le cimetière local de là où il est. amul leneen amul leneen ko gis leneen sa affaire la c'est ça la vérité. avec Macky comme directeur de campagne. non mais ab non c'est-à-dire le prime au sortant des vingt trente pour cent. Mhm. bu ñu boolewu bu ñu boolewul bu ñu booloowul ànd. Mhm. dafay compromettre. Mamboy Diawo il paraît voilà euh, y a de l'animation sur la toile te moom moo créé loolu moom mooy jël ay boy ay influenceurs voilà ñu nekk ci turam et cetera mais du a <laughs> affaire bu ñu créé la matul 15 jours. moom mu ngi. non matul 15 jours je te dis. mu ci non mais attendez quand mu ngi ci matul 15 jours sëriñ bi. à part le Kolda qu'est-ce qu'il peut faire mais rien du tout lan la mën a def lan. situation bi yëpp 26 pour cent moo ñu ko yóbbee. kese. Euh, mais vingt 26 pour cent bu ñu bàyyi woon les 74 émergés ñi jël ci 10 ñi jël ci 15 comme en 2019 et cetera. maanaam tey dalay lay permettre bu dee dangay def de l' analyse pure. da ngay jël fichier électoral bi. état major yi mën a def présidentiel. bu sérieux te sincère matuñu juróom. nga jël seen carte de membre. seen base de données. yaa ngi dégg c'est-à-dire tu peux faire un travail qui va te permettre tey en tant que journaliste ah fii nga xam a peu près bu ñu demee les gens font ces calculs là à peu près par exemple boo jëlee la filière socialiste je sais que ni c'est 800000 mais 800000 yi bu dee ils sont autour de la plateforme socialiste mais bu xalifa demee keneen dem keneen dem keneen dem kenn ku nekk ñaata nga yóbbu lu fay des est-ce que du am ñoo xamante ne bii de négociation dañuy des bennoo wala des ak Macky Sall tu comprends donc affaire bi loolu la mais imaginez fi mu nekk nii dara leerul xamuñu kuy candidat xamuñu bannière xamuñu dara dara dara mais tu ne peux rien faire sur la base du fichier sur la base des des des des des des des des des des militants au niveau des états-majors. sur la base de la dernière présidentielle. ak dynamique électorale kenn ku ci nekk. bu nekkee par exemple quelqu'un qui est en 2017. avait 36 000 voix. 2019 mu am kii multiplié par 20. te wóor la ne ne 2020 2019 ak léegi yokku na fi. à peu près. avec une marge d'erreur parce que doo ko multiplier par 20. tu peux dire par quinze kooku à peu près da xam ñaata la am un candidat sortant uni avec sa suite électorale mënta am lu ëpp trente pour cent OS mus na koo wax ne Macky Sall bu présenté bu bëree bëri quarante pour cent moi je lui cinq mais bu fissuré woo ñaata moo fay des tu fais le calcul ñi ci des presque zéro la béy wuñ gannaaw da ngay xam deux mille vingt quatre fu Sénégal jëm. mais bu ñu jëlee bri brouillé pousse yëpp piste yëpp tëj ñii jàpp ñii contraindre ñii et cetera kaay leen ànd ak man ak man charte yow charte euh, à la non violence bi ñu defoon en deux mille vingt deux kan moo ko respecté ko respecté les initiateurs ñoom docteur Cheikh Gueye ñoom euh, Sidi Ahmed euh, Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine et cetera ñoom ñëpp kan moo ko ci respecté te def nañ ci ay rencontre dem ay radisson et cetera kan moo ko ci respecté. Mhm. vous pensez que quelqu'un Macky Sall va lui faire signer benn affaire après mu ñëw toog au kii. Mhm. li Macky Sall tontoon opinion bi loolu la koy tontu. Mhm. sëriñ bi. assise bi ñu la ko waxee da nga ne woon carrément réserve nga def. CNRI bi ñu la da nga ne carrément li nga ci mën a jël ngay jël et cetera. par la koy ba ban moyen la am pour contraindre ko gars yi du ñu respecté dara il faut décider la charte. ñoom l' essentiel wala naxtaan ak moom. ku mel ni Aly Ngouille am dana kan. maa la wax buñ ko tànneeg buñ ko tànn. non day nekk candidat ah dem na Touba di sàkku ji ñaan pour loolu. Hmm. est que du politique rek. Ah, dem na Touba de dem Touba moom moom wóor na ma. loolu waaw loolu moom wóor na léegi nag attendons le ba. Ah, moom benn moom de toute façon moom nee na tekk kenn dégg ko ci dara. no mu ngi ni tekk waaw parce que moom day xaar ba xam. te xam nga ne Aly Ngouille Ndiaye bu apa mouvement la yor. ban envergure la Aly Ngouille Ndiaye am am na ay postes yu am solo la ngi mu occupé mine intérieur agriculture. mais ça ne fait pas de lui un homme politique d'envergure nationale. Ah. <laughs> ba pare élection lu course de vitesse marathon la. ok tax Macky bi mu génnee rek il n'a pas perdu du temps. OS bi ko dàqee rek il n'a pas perdu du temps. Macky Sall moo la gën a xam ni. politiquement Sonko ci seen kaw la jëmoon xam nañ ko sax. moo tax ñu def li ñu def mais bon <laughs> affaire yi jeexagul ah <laughs> parce que de toute façon moom on est en politique. Euh, ba pare la mort de Henri Konan Bédié surnommé le sphinx de Daoukro oui. au mois de juillet mm -hmm. est naturellement révélateur parce que nit ki ci politique mm -hmm. daanaka wax mu ne balaa nga naan nit dee ci politique bàyyil ba ñu suul ko te mhm. nga jël nit def ko ci kaso bi alors que c'est une passerelle mhm. te Nelson Mandela aussi nee na carrément maanaam dem kaso ci kii def